بنعمة ربك بمجنون ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di sant Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ñaan yàlla fayal nu ko te yàlla tas ñu ci ay barkeem di sant Cheikh Mouhamadoul Fadal mi ma booleeg Sëriñ Tuubaa di ñaan yàlla fayal nu ko yàlla tas ñu ci ay barkeem di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général des mourides Serigne Touba mu yàgg fi lool te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ci sago te nu fekkee ko te ànd ko moom noonu koy ñaanale njabootu Serigne Touba gépp góor ak jigéen mag ak ndaw dañu ko ñaanal njabootu islam gépp njabootu Sénégal gépp dañu ko ñaanal ñun taalib yi ak fi ma ne bokk di tàmbulee sant gi ak ñaan gi nag ci taskati xabaar yi ndax lii ñuy def ni ngeen ci jàppee bañ mën ko jot li fu ne ci àdduna si jot ci ñu leen ci sant ci turu bokk yi teew yëpp di jégalu itam ne bala ñoo wax dara ci jeexee ñëw bi yàlla dafa dogal yi fi fetuñu Dakaaru xam ngeen mbiri oto rek am lu ñu doon defar lu ca daamar ja ci oto Sëñ Tuubaa ñu yore ndax suñu lépp Sëñ Tuubaa ko oto Sëñ Tuubaa bi ñu yore am lu ñu ci doon defarlu mu xaw a yéex a noppi na sax waaye ko ko doon jëri moo xaw a yéex a dem bi ñuy génn itam xam ngeen tey Ndakaaru day samedi ak burdu bi ñu toll ñu bari dem ci dëkk yu tedd yu bari defa dem ci burdu bi ak bi yooyu tax yow ni xawoon a xat ba daanaka dañoo ak sa jubal si fii kon ñu ngi jégalu ci yeex a ñëw gi ndax dañu jàpp dañoo fëroon ñëw bale barab bi dalal ñiy teew njëkk fi mujj fi ngir sëriñ Tuubaa mi tax ñu koy wootee amuñu lenn lu dul moom luñ mel mooma luñ am mooma ñu xam mooma yàlla nañu ko yàlla fayal ñu sant mbokk yi fi teew yëpp nag xam naa da ngeen a baax rek suñu fàll waaye du jëru ko woon sama mbokk yi fi teew jiitu woon fi mën nañu lii fu dàq ko sama doomi sëriñ yi fi teew ak sama mbokk yi sëti sëriñ yeeg li fi jéem a wax ñooñu ko dàq mën nañ ko te bi ma accès rek sama doom ji ma fekk muy def euh, déclaration bi en français defe naa suñu Cheikh Adma la bu Cheikh Seydou Moussa Seydou Mouhamadou Bachir foofu itam danaa fi fi def observation bu dama koy ñaan mbokk yëpp rek euh, da ngay dégg bu ñu tudd ñu bëri ci mbokk yi da ngay dégg ne lay wax Mamoun Mbacke Serigne Mamoun Mbacke Fallilou déedéet nañuy wax Mamoun Mbacke moom Serigne Fallou waaye ni Serigne Mamoun Mbacke ba nepp naan Fallilou loolu loolu loolu xaw naa xaw naa cofaate loolu bu ëpp Maamun Mbàkke ah, rek Maamun mën nañu ko wax Maamun Mbàkke moom bu nekk moom sëñ Fallu nag mën na ko wax sëriñ Hamsa sëriñ Hamsatu sëriñ Abdou mais bu ñu wax sëriñ Hamsatu Hamsatu Abdou loolu moom dama koy ñaan mbokk yi rek ndax sàllalu kilifa day xañee barke la boo xam ñun ñëpp dañu ko yóbbaale di ko di ko di ko di ko laafale yi ñu laaf seen turu waajur bu ñu tudd kilifa ko nag di sàllalu waajur kooku parenthèse la euh, bu loolu jàllee bëgguma leen téye yàgg ndax xaw naa guddi te li ñu a wax wax nañ ko li ñu waroon a jëf nañ ko dañuy sant ñi fi teew ñëpp rek di leen gërëm sant ci turu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ndax ñun murit li ñuy def lépp génn kilifa ñam muy muy sëñ Touba te sëñ Mountakha mooy sëriñ Touba li ñuy def moom lañ koy defal li tax ñu teew fi nag yéen ñëpp xam ngeen ko juróom ma cee dem eh, xam ngeen ne ak tooñ la boo xam ne xam ngeen ko yéen ñëpp te ki tooñ tooñul tooñul murit yi rek eh, confrérie yëpp la tooñ tariix yëpp la tooñ donte Cheikh day wax ne am na tariix bu bokk sax tooñ boobu tooñ na ko ndax bi bi muy tuumal ñëpp la tuumal gis ngeen li suñu dañuy trafiquer dañuy def blanchiment d'argent dañuy jaay drogue dañuy jaay ay ay faux médicaments lu ne wax na ko bu nekk ci la bokk kon kooka mooy comme fa wax ne fa la bokk aw tur la bokku fa ndax foofa xam nañ leen kër ga muy wax ne ci la bokk ak tarixa ba xam nañ kër ga xam nañ tarixa ba wala rek lañ sekk moom jàmm rek lañ sekk ñoom kër ga muy wax ne ci la bokk ak kër gii Touba dañoo seq ak jàmm rek te tàmbali nga bu yàgg jàtt jamono El Hadj Abdoulaye Niass ak Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Niass Cheikh Cheikh Mouhamadou Amine Péré Niass ak Cheikh Ibrahima Niass ak ñoom ñëpp jàmm rek lañ seq ba ci ñun ñi ba ak ñoom jàmm xalifa yi fa jaar yi ci mujj muy Serigne Abdoulaye Niass di euh, Ahmed Tidiane surtout ñu daan ko wax papa Cheikh nga xam ne affectueusement waa kër ga noonu la ñu ko papa Cheikh dañoo jaxasoo nag moom muy suñu wëllëre lool Imam Hassan doon suñu wëllëre lool rakam yu tedd yee fa nekk di imam Cheikh Ahmad Tidiane ak Cheikh Mahi di suñu wëlëre lool professeur Barham Diop doon suñu wëlëre lool ak ñu ba ak njabootu Cheikh Islam ci boppam koo xam ne ñibbi a wax dama bëgg wax rek ne dañoo yàggal ñoom ci lépp di jàmm noonu lañ lu ñuy wax kenn lu dul noona kon nit bu fekkee ne moom xamul xamul boppam amut xam-xam yaruwut di tooñ kooka loolu daal defe naa ne ñam tooñ ñoom la ko seqal te tooñoon ñun murid rek confrères yëpp la tooñ te dañ leen tudd nommément kon nag kooka kooka kooka la mu def xam na ko te yit mën nañ ko faj nous sommes nag des républicains droit bi muy wax da jàng nañ ko dàquñu ko jàng nañ ko dañ ciy diplômé di ay républicains lañ xam nañ droit xam nañ état fa fajulu suñu bopp waaye dañoo tooñ nag mbéj mbe nuñ ko waxeeti mbéjum kanam nag borom ma ko fajal boppam damay wax ne ci exemple lu may comparé du bokkul sax ndax ñun duñuy duñuy am dañuy euh, euh, service sécurité mais chef d'état bu doon romb fii nga tëb saaga ko mbaa nga yóbbu jaas jëm ko sécurité bu ñu fa tekkaan ko monsieur le président quest def la ñuy def rek sëñ du fi nekk di sëñ bi lu ñu war def ci saaga sëriñ wala ki wax lu dul sëriñ lu du la ko wax sëriñ Mountakha du la mukk sax saagal jiw wala dumal jiw wala defal jiw déedéet moom li wax lépp xamoon na ko fa kullu man chatamani aw laama fa hablahu tawbata wa ba ku ma saaga moom sëñ Tuubaa wax na ko bind ko sax ku ma saaga mbaa nga ñaan ci man jot yàlla yàlla na ko yàlla soppi te jubale aw xelam jégal ko bu def jégal ñëpp ñun nag am na loo xam ne bi ñu ko jégalee mën nañ ko faj te danañ ko faj mën nañ ko faj te danañ ko faj te it aguñu fenn fu ñu waxee kenn bàyyi nañ la ak yàlla du à titre individuel du groupe bi saa ñu gis rek jekk nañ foo ñu fekk rek fii may tax ak yow ku ñëw jekk nañ te ñi mu wér ñëpp foofu bëggu ñoo àgg foofu ci réew mi nga xam réewum jàmm la ñoo ko bokk islam ni mu jàngal mooy man kaana yuminu billahi wa yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut sallallahu alayhi wa sallam ku gëm yàlla gëm bis bu su dekk bi da ngay wax bu baax mu nga noppi Sëriñ Tuubaa wax ne yoonu murid li ko war mooy niyatul xayr wa feeral xayr wa xawlul xayr da ngay yéene aw yiw di waxu yiw di jëfu yiw leneen loo wax loolu loola bokku ci loolu mooy islam loolu mooy diine ku ci tariix yëpp lu ñu jàngale islam bépp loolu lay jàngale xoolu li naa si xusnan la alxuraan wax kon kooku ki kiy wax wax ji nga xam ne moo sooke lii te contexte ba tax mu def ko lii tax ko woon a jóg waaye daf fekk mu jiitu ko wax wax ñaaw yu ko jiitu contexte da koy yee waaye taxutoon taxutoon mu jóg waaye waaye tax mu profité ci nag wax la mu war a wax bind bind la la mu bëgg a bind kooku nag mooy ak yebaate la ak tooñate kenn defloo ko mu indi nag tuuma mu indi nag tuuma ak sikki sàkka ndax nit ñi waaw waaw nit ñi dañuy wax ne wala fi dañaan wax ne ku ku ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku ñuy ji ñu ndëmb ñu fekk la ngay soño yére yére liir yaa tooñ sa bopp ñi toor ci réew mi léegi jàmbur yi ñu toog ñoom dara le premier ministre Ousmane Ousmane Sonko ba mu koy recevoir sama kër fii Touba ñu bari ñu mënu ko recevoir maa ngi ak photo yeeg vidéo yeeg yëpp mi ngi ci net bi ñàkkul sax gis ko yéen yëpp ñu politique ñu lañu am ko ñoom dañu leen tuumaaloon ne ay salafiste lañ xam ngeen lu nekk lañ leen ko dégg ngeen ko ji dama gën a xam

xam nañu administration ndax jaar nañ ci lu ñuy koo xam ne yow sax tuumaal ñun ñëpp la ñetti mbir ngay tuumaal nit ñi na waaye xamuñu juróom ñaari tur ñetti tur moom xañ na wax ko moo ko xam dañ xañ da caa bokk daan na juróom-ñaari tur la wala dafa am agenda xamuñu luy agenda ñun suñu agenda muy jaamu yàlla waaw ma ma xalaqtul jinna wala insa illa liya'budun sa jaamu yàlla ak liggéey loolu la ñu fi indee amuñu agenda ñun amuñu agenda agenda suñu islam mooy l'islam moom na xam agenda ba ko judd ñu xam wala bokk wala ñaari tur ñu xamuñu ñaari mooy day wax ne ay franc-maçon ne xamuñu xamuñu luy boo xam ne kilifa réew la réew muy xaritu Sénégal mu koy tudd ko tudd xam ngeen ko tuumal na ko tuumal bàyyam loolu ak rey ma ne mënu ko weesu tey nag wax nañ boo wax ne sax diplôme yi wax ne am na ko sax amu ko loolu suñu nekku ci bu ko neexee lu mu am ci diplôme rek ñu sama gannaaw am nañu ko ko waxewuñ ko kon nag li di ko ñaan mbokk ñu dal danañ ànd ak xam nañ li xew dàquñu leen ko jàng gën leen koo xam waaye dañoo am dañoo am kilifa am na loo xam du ñu tàggu suñu kilifa nag ñoo koy fayal suñu bopp ñàkkuñu fay ragaluñu te xam nañ réew mi dañu dañu nee na nag kon un TPC ku ma tudde ngeen baal ma sax li ma ko tudde tur ñu sax mérité wu ko bu ndabay ba dañ koy wax oms oms sax du taw dañ koy wax dañ koy wax dañ koy wax cumbur puróñ kuti cumbur puróñ kuti la waaw bu doon mbaam sax mbaam day am njëriñ mbaam day am ndax mbaam mën nañ koo sëf mbaam mën ko takk sareet mbaam mën ko béye mais ak cumbur amul njëriñ waa dugal lekk ak génne lekk rek lay liggéeyee puróñ la mën nañ ko jaay boo dépassé rek xel dexu gànnaar gi dem jaay ko waaw waaw dexu gànnaar gi boo dépassé woon dem jaay ko te te it ku ci la ci cum euh, euh, waaw waaw waaw cumbur la ndax ndax cumbur mënta sëf mënta jaay mënta mënta bay puruñ as puruñ la si puruñ da koy jaay amul njëriñ mais puruñ amul njëriñ la parce que mënta wax ay ay ay bëtam baaxut aw aw laa ma ñoom dara mënta sam gële mënta sam sam euh, ay xar loolu amul njëriñ as ku ci la itam ndax bu doon xaj bu mag sax ab xaj mën mën nga koy def mu lay gardeel mbaa mu lay mbaa mu lay am na fidélité mais as ku ci moom amul njëriñ dugal lekk ak ak génne lekk la jëriñ te mën nañoo weesu fii nag lii ñu wax mën nañu ko weesu ndax xam nañ li xew te ci réew mi lañ dëkk ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag bëgg ñu gën a dugal ndax ci réew mi lañ dëkk xam nañ li a saafara république mais ñi ngi art nag kilifa yi rawatina ñaari kilifa yi nga xam ñoo jiite réew mi ñu réagir ci mbir mi parce que sinon day mel dañ ko cautionné ki nit boo ko fajee jox ko doole muy agir ca baat ba nga noppi ca day dañ da nga ca ànd ndax ñu ngi wut def lu ràkkarut gis gis nañ bërki démb ñeneen ñaar ñoo xam ne bañ leen di xeex ci décret lañ jël te nekkuñu fi ay institution lañ jiite ñu jël décret dàq dàq leen te kii li mu jiite du institution ab direction rek la yore direction bu ñu bu yàgg rek décret ko fal mën na ko mën na ko dégommer à n'importe boo mu waxee lu ñëw ci kilifa yi ak président bi fi nekkoon ca saas lañ ko wàccee moom nee na ki wax ci rajo bi nee na kilifa googu da ko ne ak wàcceem ci rajo bi la ko dégg di ñu sax courtoisie daan ko kaay dañ ko daal di jël dëkk wàcce ko ci saasa te li kii wax gën a garaaw la mu waxoon kii li mu wax gën a garaaw la kooku waxoon te kooku dañ ko wàcce saasa kon nag kii autorité bu ñu ci noppi dañ ci réagir sinon rek am fu ñu dëkkale te bu ñu amee fu ñëpp di balu ñëpp ak axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin